voilà dañuy ñëwaat rek euh, continuer fa nga xam ne foofu la ñu bàyyee woon démb euh, dinaa leen ne nag bu fekkee ci biir waxtaan bi am na benn xale rek bu toog sa wet nga bàyyi ko mu dem toog yi ne dugg néegam fàtt ay noppam duma wax nag benn masiba naaru laay wala rien de ex waaye di ngeen dégg ay mbir yu kéemaane tey ci suñu gouvernement bu Sénégal gouvernement bu Sénégal dafa doon gouvernement wu cartel li américain di wax is literally li literally xam nga américain dangay ne euh, par exemple boo diw nangam mën na nekk caaxaan comme mën na nekk literally maanaam comme réalité donc euh, liñ fi wax yépp tey ci gouvernement Sénégal euh, bu leen fàtte ne du doon euh, ay caaxaan walla comme ay fo mais ay réalité la xam nga boo leen xoolee li ñu tàmmee def Sénégal mooy dañuy ne force rest à la loi loolu la Macky Sall ak ñoñoom di wax ñun par contre dañuy ne toujours force reste au peuple reste au peuple boobu dafa am lu tax ñun ñu koy wax toujours parce que xam nañu ne Macky Sall gëmul loi Macky Sall ñi mu àndal gëmuñu loi loi sélectif euh, dafa am lu tudd selectif justice maanaam justice select maanaam bu ko arrangé mu ne juge bu ko arrangé mu ne yàlla bu ko arrangé seetlu ngeen Macky Sall mbokkam mi même bu leen arrangé yenn saa dañuy indi ay aaya alquran malgré même aaya yi bu jubul da ngay gis ñu dem Touba wala Tiwaawan commencé indi ay aaya alquran te xamuñu nag tous ci alquran waaye dañuy indi aaya bi rek pour jéem a nëbb seen médiocrité xam nga ndeysaan suñu frère Jomaay Fay yàlla na ko yàlla génne fi mu ne ci jàmm ak salaam dellowaat ko njabootam ci lu mu gën a gaaw moom mag détenu politique yépp newoon na la clochardisation de la justice maanaam Macky Sall il a clochardisé la justice sénégalaise parce que yow mel mi mënuloo ñëw nga ne waaw yoon moo yor dëgg yoon lu mu àtte rek loolu la ñuy def yow mel mi encore yoon atte teg la ci yoon nga ne du duma respecté li yoon wax man li ma neex lay def loolu mooy li grave vous savez on habite dans un pays où vraiment la justice est clochardisée xam nga nag dinaa leen wax dara dama leen di jox benn exemple am na ñoo xam ne dinañu mën a vérifier loolu ndax magistrat Sénégal yi bari nañ lan moo tax ngeen yaakaar ne Macky Sall a pris ses hommes maanaam ces délinquants ñi bokk ak moom ci cartel bi ces hommes il les a mis dans les positions stratégiques dama leen di jox exemple à Ali Siré Ba Ali Siré Ba moom mooy président wu cour suprême bu Sénégal bu Dakar président wu cour suprême Ali Ciré Ba et moo ne de bu dee wu nañu ci article deux cent huit tiré trente cinq fait le huit août deux mille huit am na lu mu waxoon ci tànn magistrat wu cour suprême. te ki fa yàgg muy procureur général cour suprême Mansour mbay la te Mansour mbay boobu li tax ñu xañ ko ko c'est parce que il est sudiste waa Casamance la waa Casamance la Macky Sall la ak général Moussa Fall dinaa leen jox tey tuuti rek ci général Moussa Fall ak Casamance tuuti rek ci général Moussa Fall gis nga Casamance le général le plus lâche de l'histoire de la Casamance était le général Moussa Fall dama bëgg ñun ay sénégalais lañu te dañu am xel Moussa Fall bañ bi mu bañ Casamance moo tax bañ ko joxee liggéeyu commandant wu Casamance il était l'un des plus lâches massacre yi gëna a bon ci histoire Casamance ci loxo Moussa Fall le jaar les plus mauvais maanaam massacre yi gëna a metti yi gëna a dangereux ci loxo Moussa Fall la Moussa Fall bi mu nekkee Casamance dafa am ay éléments yu ko doon liggéeyal mais plus particulièrement laaj leen ko ñaari éléments yooyu ñu doon ne les deux chats ñaari éléments yoo xam ne dañ leen tuddee woon les deux chats noirs les chats noirs da ngeen di laaj pourquoi ñu tuddee woon leen loolu les chats noirs ces deux personnes qui travaillaient pour lui en Casamance kon appelait les chats noirs am na gendarme am na journaliste journaliste boo xam ne dafa doon liggéeyal Moussa Fall Casamance c'est des informants maanaam ay nit yoo xam ne dañuy jël information bu critique bu dangereux ñu jox ko ko di boole ay nit mu leen di disparaître loo muy assassiner ay doomu aadama left and right kooku mooy Moussa gis nga Moussa Fall bi muy jógee Casamance pour bañ a bàyyi trace yooyu journaliste boobu sax daf ko wutal réfugié yóbbu ko France Moussa Fall ba mu defee sale boulot bi Casamance ba xam ne Casamance de tilimal na ko tilim boo xam ne bu fa jógee loolu da koy topp ba ci bàmmeel booyam yi fa nekkoon sax dafa fexe ñu jóge booy journaliste bi sax daf ko wutal réfugié daw yóbbu ko France kooku mooy Moussa Fall l'homme de confiance de Macky ce n'était pas Moussa Fall c'était Fomba laaj leen kuy Fomba demandez la question qui est Fomba Fomba c'était l'homme de confiance de Macky kooku la Macky wóolu woon njabootam wóolu kook soxnaam mu leen di yóbbu fune ne mu leen di indi fu ne xam nga ndeysaan bi ñu paree sacrifier Fomba Moussa Fall dafa yoot ndànk dem ci mag yi mu ne ko Fombade dafay laal Mariam maanaam day sëq ak Mariam Faye Sall da koy tëdde parce que tellement que Fomba était l'homme de confiance am na sax ndeysaan benn kër bu Mariam doon fréquenté point e boroom kër gi mu ngi Amérique bëgguma tudd turam yeggaguma fa waaye kër googu la ñu doon demee di defi seen lëmbalu taatu neen yooyu ak seen naan sangara yeeg seen yu ñàkk fayda yi nga xam ne moom la ñu daan def point e. balaa ñuy dem toujours point E Fomba da daan dem ndeysaan comme jabaru président boo koy garder comme garde corps da ngay dem nga palper kër gi nga fuye nga xool entourage bi yépp xool ndax amul benn danger bu Fomba defaan loolu bu boobaa Marème ñëw dugg nekk fa ay xaritam di def seen yooyu. ndeysaan benn jour dañu jël fomba ñu serap ko li ñuy ne serap maanaam piégé piégé ko benn journaliste dem photographier fomba muy génn ci kër googu te fekk marem mi ngi ci biir kër gi Moussa Fall daw jël foto ba moom moo yónnee woon parce que journaliste yu bari la jënd wax naa leen loolu mu daw jël photo ba yóbbul ko Macky mu ne ko li ma doon wax ci marem di def nii ak fomba mi ngi nii ñu jëlee fa fom ba automatiquement ñu limogé ko loolu dafa ubbi benn bunt pour Moussa Fall gën a jege Macky Sall dafa am ku tudd Abdoulaye Fall c'est un général Abdoulaye Fall mu am yu bari yoo xam ne xamoon ngeen ko ndeysaan bi ñuy jàppalee trois tonnes de cocaïne à Ndayane Moussa Fall moo nekkoon section de recherche Abdoulaye Fall moomu moo jiite woon légion wu gendarmerie trois tonnes cocaïne la ñu jàpp ndaayaan trois tonnes cocaïne yooyu ñu ne ñoom dañ ko dem escandiller Sococim déglu leen de <laughs> déglul ñii ni ñu neexee ak nit ñu yabee ñu jàpp trois tonnes cocaïne imaginel de Moussa Fall Abdoulaye Fall booba président Abdoulaye Wade fi ne booba Macky Sall bi ngi ci gouvernement président Abdoulaye Wade ñu ne yaayoo ñoom trois tonnes cocaïne yi parce que bu leen fàtte ne gendarmerie mooy jàpp ñu ne ñoom trois tonnes cocaïne yi yóbbu nañ ko Sococim taal ko trois u cocaïne avec sa Moussa Fall et Abdoulaye Fall retraité na tey Macky Sall Moussa du woon premier premier option ma Moussa Fall il a manipulé manipulé manipulé ba yegg ci kaw il a passé par les journalistes nee naa leen pare leen ut dictionnaire livre laa leen di gox ci Moussa Fall livre tey tuuti la suba tuuti ginnaaw waati suba tuuti ginnaaw loolu tuuti chaque jour que Dieu fait je viendrai vous donner des éléments sur Moussa Fall ba keroog moom ci boppam bu yuuxoo ne yaa yooy dimbali ngir yàlla Tunkara j'ai démissionné bàyyi naa ndax sama njaboot ndax am na sax doomu jiitleem boo xam ne day tukki lu baree bare bitim réew entre Amérique ak Canada am na benn doomam boo xam ne du doomam dëggantaan c'est pas son vrai fils mais day voyager lu bari Moussa Fall la xam comme papa moo ko yar donc nañu continuer rek mussa Fall bu ma paree ci moom je vous garantis que soit dina bàyyi liggéey bi wala mu mu xam na mu def ak ñun parce que li ñu yor ci moom ci dossier dafa bari d'accord ma ñëw dellu siwaat ci cocaïne ba ndaayaan duma ko sori de dama bëgg ngeen laaj Macky Sall ne ko idi idi idi Idrissa Seck idi mais idi am na loo xam ci fond Taïwan yooyu xam nga da li tax ma koy tuddee fond Taïwan ñoom fonds Taïwan yi laaj leen leen ban façon fonds la xam nga toujours sénégalais dañuy dégg rek les fonds de Taïwan les fonds de Taïwan les fonds de Taïwan nee leen Idi Idrissa Seck qu'il n'a qu'à venir nous expliquer les fonds de Taïwan ne leen Idi mu ñëw expliquer ñu ko parce que Umaru Sissoco Embaló le président de la Guinée-Bissau bokk na ci ñoo xam ne dañ leen jaayal cocaïne boobu Omarou Cissokho Mballo daf ci bokk ak kan John Obi un Nigérien qui s'appelait Jan Obi Jan Obi dafa bari woon ay procès ci boppam il avait beaucoup de procès sur sa tête ce qu'il avait décidé de faire mooy ñoom dañu dem jëli Jan Obi ginnaaw bi Moussa Fall ñoom bi ñu sàccee cocaïne bi ba pare moom ak général Abdoulaye Fall dañu dellu ci Macky Sall Macky Sall a cherché Umaru Sissoko Embaló muy président Guinée-Bissau bi ak Jan Obi le Nigérien pour ñu jaayal leen cocaïne boobu ñu seddoo xaalis Macky Sall du tey la tàmbali délinquant nekk délinquant nekk bandi moom ak Moussa Fall mi du tey ils ont travaillé ensemble pendant des décennies Moussa Fall li mu xamal Macky Sall dafa bari lool Macky Sall aussi li mu xamal Moussa Fall bari lool ce n'était pas son premier choix amul choix rek mu indi ko waaye bi mu ko indee dafa xamoon ne defkatu ñaawteef bi gën a mag la mais xalaatul woon ñu yegg fii ñu yegg nii tey buñ leen nee Moussa Fall dafa bañ waa Casamance loolu du ex du kii du débat moo tax ngeen gis ma ne la mu jël Casamance jéem a séparer xeet yi jël mankaañ yi gën a lâche ay ñoom Jérôme Bandiaki yi ak ñeneen ak ñeneen def leen nii léegi bàyyi aussi joolaay di leen xeex parce que du pour rien Macky Sall kii ku mën a assassiner un Joola à Dakar tu n'as pas de problème pour assassiner un Joola en Casamance boo leen gisee xeexu Casamance bi amoon problème pour jeex c'est parce que y des hommes malhonnêtes à la tête des des des institutions du woon xeex bi rek mettiwul metti na woon trop deret bu baree fa tuur woon mais on pouvait l'arrêter très tôt mais y des personnes qui ne bénéficiaient pas sur l'arrêt maanaam daggu garabu Casamance yëpp jaay ko Moussa Fall il a participé jaay cocaïne maanaam trafic boo mën a xam rek drogue ci àdduna bi Moussa Fall il a participé assassinat boo mën a xam ci nit bu important Moussa Fall il en a participé nee naa leen laaj leen ko les chats noirs ni ñu doon tuddee les chats noirs laaj leen ko Moussa Fall ne ko yan la ñu doon tuddee les chats noirs y avait un élément de la gendarmerie comme y avait un journaliste yoo xam ne ñoom ñoo daan wër ci biir dëkk bi nekk ay infiltre bu ñu jaaree ci kanamu nit ñi am information dem jox ko ko mu assassiné ay nit nee naa leen Moussa Fall moomu ba mu pare bañ koy jële Ziguinchor boobu bañ ko fay jële dafay yóbbaale journaliste am daf ko yóbbu France defal ko réfugié tur bi mu ko defal sax xam naa ko tur journaliste bi vrai sax am naa ko donc ñun dañuy informé wu ci Sénégal Omarou Sissoko Embaló président Guinée-Bissau bi da ngeen koy dégg toujours mu ne la je suis un membre fondateur de l'APR parce que moom mag ki sàll seen xarito dafa yàgg lan moo indi seen xarito jaayum drogue la drogue moo leen boole parce que ñun suñu gouvernement Sénégal bu ñu sàccee drogu Sénégal bi ba pare dañ koy jaay ñoom drogue bi buñ ko jàppee dañ koy jaay de drogue bi buñ ko jàppee duñ ko bàyyi mu dem ils le vendent le gouvernement de Macky buñ jàppee drogue dañ koy jaayaat dañ koy jaayaat damay ñëw tuuti ci côté justice justice lay lamb tuuti rek dinaa ñëwaat encore ci Moussa Fall mais damay ñëw tuuti rek ci justice bi justice bii justice su jaay doole Macky Sall bii mais justice bii bu leen fàtte ne keroog bi ñu leen koy wax nee nañu leen saaba si fay mi Abdoul mbay la njëkk àtte c'était l'assesseur du jugement de Abdoul mbay moom moo nekkoon assesseur premier assesseur ñoom ñoo acquitté Abdoul mbay mais lan moo tax pourquoi Macky Sall attaqué Abdoul Mbaye demandez-vous la question Abdoul Mbaye c'était le premier ministre de Macky Sall bi ñuy commencé affaire Petro Tim boobu ak Frank Timis biñ ko tàmbalee Abdoul mbay dafa bañ pour ñu signe contrat bi pour ñu ratifier euh, Frank Timis contrat bi mais Abdoul mbay après dem yëg ne Aly Ngouille Ndiaye defal na ko Macky Sall maanaam dem na defar foo déjà abdul mbay ci document bi waa ji génne Aly Ngouille Ndiaye ci document bi Aly Ngouille Ndiaye génne moom la Abdoul mbay bañoon pour génnee li nga xam ne pour signe li nga xam ne moom mooy document boobu mu bañ parce que rapport bi Aly Ngouille Ndiaye def ko falsifié def ci ay caaxaan yu bari indi bim ko indee ñu bañ koo signé Abdoul mbay ne moom du ci dugg parce que dafa gis ne Aly Ngouille Ndiaye a fait beaucoup de magouilles dans le document mu ne du ko laal yéen a ngi fàttale ko am na benn homme politique boo xam ne nekkoon na fi moom it ministre ñëwoon na fi di jéem a seetal boppam mu ne ah ñoom bi ñu ñëwee kooku de dinaa la wax dara y un homme politique très proche boo xam ne nekkoon na ci seen biir nee na Cosmos énergie déposé na ko un milliard ci compte donc moo taxoon moom mu bañ ne Macky Sall nañu fexe jox contrat bi Cosmos énergie Macky Sall ne non non non Total lañ koy jox parce que Macky Sall tamit fekk na lekk na xaalisu Total kii lekk xaalisu Cosmos ke la lekk xaalisu Total c'est un homme politique buy wër Sénégal rek yor làmmiñam ne moom dafa set wicc on na déposé un milliard dans son compte Cosmos moo ko déposé moom Macky Sall mi fekk jël na moom it xaalisu Total donc ñu obligé jox Total contrat bi xam nga Sénégal bu ñu nee amuñu justice bu ñu nee nañu xeex injustice ñu bari dañuy blâmer mais tey naka nga mën a tuddee un président de la république qui sort et dit à tout le monde entier que à acte de bu amee vraiment man dinaa taxaw ma protéger les décisions de la justice un président qui l'a dit tout le monde l'a écouté mu ne moom lépp luy mbirum justice daf ciy taxaw te dafay doole justice pendant ce temps bu leen fàtte de c'est le même président qui nous a dit ici qu'il a voté sans carte xam ngeen lan moo tax affaire Mame Mbaye Niang bi ñëwagul xam ngeen ko vous savez affaire Mame Mbaye Niang lay xeex fi mu ne nii pour indi à tout prix ni nii la defoon Abdoul Mbaye vous savez que le dossier Abdoul Mbaye que Sabassi avait jugé c'était un dossier aussi personnel gouvernement Sénégal dugal ci seen làmmiñ Abdoul Mbaye ak soxnaam ñoo doon divorcé gouvernement Sénégal dugal ci seen làmmiñ pour xeex Abdoul mbay comme niñ ko defee nii rek ci mbirum Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko dégg ngeen tey Juan Branco Juan Branco bi muy ñëw pour ci àtte Mame Mbaye Niang bi il amenait tous les preuves nécessaires parce que gars yi ñoom ñoo bañ rapport bi de ñu ne pre rapport la tudd ñu tuddee ko pre rapport mais boo leen fàttale ko Macky Sall nee na leen rapport yëpp mi ngi ci suufu kuddam teg na ci tànk nee naa leen man mii man j'ai eu la conversation avec Amadou Ba mu ñu leeralal ma boo gisee Mame Mbaye Niang ñu créé rapport bi c'est quelque chose qui existe bel et bien te Amadou Ba moo waxoon pour ñu def rapport boobu te rapport bi bañ ko defee li gënoon naqari Amadou Ba mooy la personne qui a sorti le rapport il a été assassiné la personne ki a fait l'enquête dañu jël bakkanam donc ñoom du tey la ñu tàmbali lii yéen xam ngeen ne du hasard nit koo xam ne moom moo yoroon rapport bi gën a diis boo xam ne dafa épinglé woon aussi la première dame ak fondation parce que rapport xam nga gourmand gourmand problème justice bi ñu am ci Sénégal pour ngeen xam ko déjà danger bi mooy on na un triangle on a Macky Sall et ses juges on a Marème Faye Sall et ses juges et ses armés et on a le reste magistrats beaucoup de corruption dans la magistrature sénégalaise am na nag ñu baax trop ñu jub lool they are very serious magistrates in Senegal but they are also very corrupt ones tey naka ngeen mën a nangoo les avocats de Ousmane Sonko ont dit ceci tey bi ñu demee communiqué bi nga xam ne ñoom moom lañu ñu def dañu ne un communiqué de presse daté du 20 octobre 2023 le directeur général des élections muy DGE le directeur général des élections le directeur général des élections monsieur Tanor Tiendela Fall xam nga lu mu wax nee na déglul Tanor Thiendella Fall de un simple officier boo xam ne dañ ko teg moom du juge te du atte moom atte du liggéeyam liggéeyam rek mooy dafay lijjanti affaire élection rek ndeysaan bëgg jigéen lool nag démb am na lu ma fi wax te dégg ngeen ko bari lool alal nag Tanor Thiendella Fall moom Tanor mu ne li mu joxe comme motif mu ne il y pas encore de décision définitive Tanor moom nee na amul défi décision définitive ci Ousmane Sonko man damay laaj lan mooy décision décision définitive parce que tey on a une contumace le contumax il est en prison te amul décision définitive maanaam Ousmane Sonko dans les normes bañ ko jàppee dugal ko ci kaso bi automatiquement non automatiquement Ousmane Sonko bañ ko jàppee dugal ci kaso bi automatiquement li waroon xew te ñun ñëpp ñu xam ko mooy dañ ko waroon bàyyi mu ñibbi këram ñu attewaat ko loolu moo waroon xew mais Marème fay sàll ak ay nitam ba ñu demee ñu ne Ousmane Sonko ciix jàpp ci ay caaxaan dafa SMS Macky Sall mu ne ko li nga ragal a def boobu ba léegi man def naa ko jàpp naa ko ma continuer ci Samba Ndofène xam nga waa ji biñ ko laajee encore une fois communiqué bi bind dafa ne mu ne ci ci refus bi mu ne amul décision bu définitive du Sénégal ayant décidé de l'État du Sénégal ayant décidé ok après mu ne il n'y pas encore de décision définitive l'État du Sénégal ayant décidé d'exercer les voies de recours qui qui s'offrent à lui mu ne état de Sénégal dañu def recours donc du coup amul décision bu définitif moom warul jox loolu warul jël kayit bi di ko jox Ousmane Sonko dañ ko ragal ba léegi rek ñoom dañu ragal def première état bi parce que ba léegi ñu ngi ci seeni ay njuuñ njaaj gis nga bu ñu paree ci cas bii nii pareeguñ ci xam nañ ne duñ ci am ndam dañ ko def rek pour yéexal dañu dugal affaire bi pour ralentir tuuti pour mën a dugal euh, atte ci mbirum mambay ñaam bi loolu tamit dañ ko bëgg a ralentir rek waaye ñoom xam nañu ne nekkuñu ci yoon waaye ils sont en train de s'amuser avec le feu léegi mu ne la défense de monsieur Ousmane Sonko rappelle que le directeur général des élections a fait et conduire par deux fois la man, le mandataire du sieur Sonko et d'huissier et de l'huissier sans même accepter à recevoir signification de la décision à ce jour maanaam moom ba léegi nanguwu leen recevoir pour accepter ne ñëw nañ fi bañ naa nangam nangam bëggul def dara lu légal maanaam comme ñoom cartel lañu lépp lu ñuy def ci illégal lañ koy def après mu ne leen le collectif constate que monsieur Fall reconnaît lui-même avoir refusé de délivrer les fiches de parrainage à monsieur Ousmane Sonko. Le le collectif rappelle qu'il n'appartient pas au directeur général des élections de juger du sort d'un recours projeté par un parti, par une parti au procès, mais qu'il a juste l'obligation d'évacuer la décision de la justice. lii moo lay won ne encore ñoom ci seen bopp liñ lay ne force reste à la loi ñoom respecté wuñu loi parce que juge bi décision bi mu joxe maanaam atte bi juge bi atte mooy muy euh, euh, juge Sabassi li mu àtte loolu automatiquement nee nañu dafa waroon nekk loo xam ne d'exécuter une décision de justice le pouvoir même à déposé pas par suspension de l'exécutif de la décision et donc de la délivrance des fiches de parrainage qui doit être immédiate en application de l'article 47 du Code électoral, lequel dispose les décisions de justice rendues et transmises à l'autorité compétente ou au service de gestion du fichier électoral seront immédiatement prises en compte et traitées dans sa prescrit maanaam ñoom li ñu wax mooy atte boo xam ne juge jël na ko mu daanu ci article L47 bépp atte bu juge jël automatiquement ñoom dañu war a dox ci atte boobu même bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoom la ñu demandoo ci atte bi ñoom dañu dem defi li nga xam ne moom mooy appel te am nañ ci droit waaye du liggéeyu euh, ki nga xam ne moom mooy directeur général euh, des élections muy monsieur Tanor Thiendella Fall pour moom muy jël yenn décision yi loolu du coobereem du liggéeyam parce que moom benn du àttekat du juge ñaar du avocat moom simple commissaire de police la liggéeyam rek mooy ñu ne ko toogal foofu këyit yi ñu indi mu jóge ci àttekat juge walla dara mu topp ko et encore une fois pour leeral les recours ne sont pas suspensifs les jugements sont suspensifs il faut ngeen xam ne dañu nekk ci état de droit le collectif constate que lui-même il reconnaît avoir refusé de délivrer les fiches de parrainage à monsieur Ousmane Sonko le collectif rappelle n'appartient pas au directeur général des élections de juger du sort d'un recours projeté par un parti au procès mais qu'il a juste l'obligation d'exécuter une décision de la justice Mieux, le pouvoir même déposé n'est pas suspensif. Il n'est pas suspensif. De l il n'est pas de la décision est donc à la délivrance des fiches de parrainage qui doivent être immédiates en application de l'article 47 du Code électoral, lequel dispose les décisions de justice rendues est transmis à l'autorité compétente ou au service de gestion du fichier électoral seront immédiatement prises en compte et traitées dans le sens prescrit. Dans le sens prescrit. ñu ne nonobstant la clôture de la période de révision et du traitement des mouvements par conséquent la défense de M. Ousmane Sonko exige du directeur général des élections l'exécution dans l'exécution sans délai la décision de justice rendue par le président du tribunal d'instance de Ziguinchor, le refus d'exécuter ladite ordonnance engage sa responsabilité personnelle et pénale appliquant des articles 106 suivant du code pénal fait à Dakar le 20 octobre 2023 le collectif des avocats du président Ousmane Sonko lii mooy problème yi nga xam ne moom la ñu jànkoonteel ci suñu réew mi dañu jël ay bandi ay jaaykatu drogue ay reykatu nit ñu jox leen réew mi bañ leen joxee réew mi nag ñu jàpp réew mi en otage fi mu toll nii fi may wax ak yéen nii Macky Sall mi ngi jàpp Sénégal en otage général Moussa Fall mi ngi jàpp Macky Sall en otage Amadou Ba mi ngi jàpp Macky Sall en otage Aly mi ngi jàpp Macky Sall en otage ñoom ñëpp ñu ngi jàppante en otage ci seen biir parce que ñoom ñëpp def nañ fi njombe yoo xam ne kenn ku nekk ci ñoom bu génnoon waxal sa moroom rek àdduna bi tukki lépp leer na léegi kay ñun lay neex ñu toog ñu bañ a def dara ñun lay neex mais pour toog moom naan waaw nañu xaar justice force reste à la loi force reste à la justice doomu xaram yi ñu jiite gëmuñu justice c'est des bandi des délinquants des cartels des membres de cartel de drogue des vendeurs de drogue nee naa la foo leen layam layame rek dama leen di jox ndeysaan benn ka beneen bu garaaw ñoom xam nga ce qui est extraordinaire ils sont toujours du côté dangereux toujours nag toujours dañuy nekk ci côté bi dangereux xam nga tey ñun dañuy ne Sénégal mais Sénégal ñi ko jiite bari nañ de Marème Faye Sall la ngi ci kaw laaj leen Marème fay Sall dama bëgg ngeen laaj sénégalais yi kan mooy Dame Diané Dame Diané trois cinquante neuf hectares lañ ko jox port minéral de Bargny trois cent cinquante neuf hectares lañu jox Dame Diané kañ la sénégalais di yeewu sénégalais kañ lañuy yeew yeewu pour ngeen toog ñu naan sénégalais justice force reste à loi toog leen ngeen xaar justice àtte Macky Sall justice bu àttee bu ko arrangé wul du justice moom xam nga kañ la justice di àtte mu arrangé Macky moom buñ ko bu indee juge mi teg leen ne leen dagg leen ñooñu dagg boobu mooy justice après mu nelaw loo leen jël ay ñooxi dugal seen biir bopp bi dugal potitu saabu dugal ci bopp sénégalais yi ne leen force reste à la na ñu bàyyi justice def liggéeyam justice def liggéeyam du justice la Macky Sall yor Macky Sall cartel la yor dañuy tànn toujours kan la ñuy rendi ak kañ lañ koy rey cartel la yor mafia bu mag a mag cartel ay drogue dealer déjà un général de la gendarmerie Moussa Fall amul njombe buy am ci Sénégal buñ ko tuddul nee naa la dafa am ay bras armés de la gendarmerie am ay journalistam am ay nitam ay assassin am mu garde yëpp tëj jàpp il possède aujourd'hui un pouvoir très dangereux et très sombre le colonel Abdoul Aziz Mbaye nous l'avait dit ah boo leen demee lire livre colonel Abdoul Aziz mbay amin amin Abdoul Aziz Ndaw waxoon na ko ba mu leer wax ñu Moussa Fall ñu kan la ak banditisme yoo xam ne Moussa Fall def na ko ak banditisme yi mu dugg dama leen jox tey cas bu bees je vous ai dit demandé Abdoulaye Fall moo doon homme de confiance su Macky balaa muy retraité dama ne laaj leen Abdoulaye Fall ak Moussa Fall ne leen trois mille maanaam trois tonnes xam nga trois mille trois tonnes mooy ñaata mooy trois mille kilos <laughs> déglu leen de trois mille kilos cocaïne ah damay bañ a calculer li sax gars yi defee dama ne dama bokk ci diilu cocaïne mais trois mille kilo de cocaïne ok vingt mille dollars bu dee amerique bu dee yenn dëkku naar yi naar yi sax léegi gis naa ñu bari tànk lool ci dëkku naar yi tamit te dëkku naar yi euh, cocaïne ba double la fa prix bi c'est double maanaam prix Amérique bu doon vingt mille dollars dëkku naar yi c'est quarante mille dollars ok da ngay def deux fois trois six n'est-ce pas six nga def trois zéro yi muy trois mille bi après nga dolli ci quatre zéro pour vingt mille bi xam nga loolu ñaata la bu ma juumul de soixante million de dollars la bu ma juumul bu juumu juumuma c'est soixante million de dollars loolu buñ ko doon xayma ci ay milliards c'est presque cinquante milliards Moussa Fall rek ci nguuram ci ci ci ci ci liggéeyam Moussa Fall rek le bon gendarmerie kenn fayeetu ko chèque léegi nee nañu leen bon gendarmerie yépp on le paye maintenant en liquide tous les bons de la gendarmerie on le on les paie en liquide ci nguuru Moussa Fall rek on paie tous les bons de la gendarmerie en liquide amul benn bon gendarmerie boo xam ne tey da ngay dem ñu bindal la chèque Moussa Fall a tous les Casamançais qui ont entouré Macky Sall bépp Casamance bu mu gis ci pale bi limogé na bépp Casamance ñun fan lañ jëm ces Casamance là c'est les seuls fidèles du Sénégal ñooñu rek ñoo jub Casamance yi nekk foofu ci palais bi ñooñu rek ñoo jub moom dof bi xamul ne information bi ñuy jot ñun ci ay nitam lay jógee. nee naa leen 3000 kilos cocaïne yooyu biñ koy jàpp ndaayaan ndaayaan lañ ko jàppee port de ndaayaan ah xam nga kan moo doon kan moo nekkoon section des recherches moom Moussa Fall mii moo nekkoon section des recherches section des recherches mii Moussa Fall moo nekkoon patron bi bi ñuy jàpp cocaïne ba ndaayaan 3000 kilos 3000 kilos de cocaïne après ñu ñu nelawloo Sénégalais yi déglul de ci Sénégal bi ngeen xam yéen laay waxal yéen dofu leen naanu leen on est tous des des ay des nandité ah Moussa nee na trois mille kilos de cocaïne déglu leen ñu ne Sococim lañ ko làkkee <laughs> waaye Sénégal a neex waay déglu leen na de trois mille kilos de cocaïne Moussa Fall mu dëng mii ngeen xam nee na yóbbu na ko Sococim étalé ko déglu leen ma laal ko làkk ko trois mille kilos de cocaïne amul benn nit bu ko gis man ñi may waxal mooy ngand yi ci boppam nee nañu ma day duul nee nañu ma lépp dañ ko sàcc moom Macky Sall mii lekk na ci ndax makisal la nee nañu loolu la campagne en 2007 te Idi xam na ko Idi Idrissa Seck yëg na ko yëg na lépp moo tax Idi am fu mu jàpp Macky Sall moo tax Macky Sall ak Idi seen soo bi bari nii rek waaye non non non duñu xeex de parce que saa bu Idi junjee rek Macky Sall day dellu ginnaaw Idi tamit ne patt du yeggali Idi musul yeggali phrase ak Macky Sall day junj rek Idrissa Seck da koy ne waaw les fonds de Taïwan voilà tu sais les fonds de Taïwan fa la yem les fonds de Taïwan tu sais les fond de Taïwan Idi tu es un candidat présidentiel j'espère que au moins di nga am di dignité génn wax sénégalais yi lan moo xew ndax xam nga ko li xew yow xam nga ko ces fonds de Taïwan yi ngeen di jooy di gëm gëmloo sénégalais yi Ablaye Wade nee na moo ko may Macky ak mayu ko ko voilà Macky moo sàcc sept milliards ak sàccul fonds yooyu ci lan la jóge xaalisu lan la dañ ko bëgg a xam xaalis ba fan la jóge ak ci lan la parce que journalistes yi xamoon yépp doon bind doon kaas yépp jënd nañ leen journaliste yi gën a xam Moussa Fall ak njombeem yi nee naa leen dinaa ñëw moi je vais citer des man du ma waxantu ay tur laay citer nee naa leen Moussa Fall ba mu nekkee Casamance élément am yi c'était des chats bokkoon na ci élément am benn jour journaliste bis bu ma tuddee turam dootul génnati télé mi ngi tele ba léegi mi ngi génn di wax waaye bis bu ma tuddee turam dootu leen ko gisati Moussa Fall ba mu defee njombeem Casamance yi yépp ba pare dafa defal journaliste boobu réfugié génnee ko réew mi parce que journaliste boobu ak élément gendarmerie bi dañu nekkoon di ko informer ay informant lañu woon ñoom ñoo doon joxe position wu gars yi di wax gars yi ci lan la ñuy dugg ak lan la ñuy génn Moussa Fall di leen jàpp di assassiné rek di nekk Casamance di rey nit rek di rey rek di rey rek di li mu def ci ñaawteef ci Casamance les massacres qu'il a fait en Casamance Casamance yi ba léegi daf leen traumatisé ba léegi Moussa Fall il a laissé des cicatrices en Casamance qui ne guériront jamais am na ñoo xam ne tey ci Casamance booy tudd tur Moussa Fall ñuy saaga ndey tellement qu'il a fait de mal ba yenn dégâts yi gën a mag ci Casamance sax wóoruma ñu ngi ko koy jiiñ ñi naan bato ni bato nale man bëgguma dugg ci loo xam ne wóoruma li ma wóor rek laa ma a wax mais je sais qu'il faisait beaucoup de trafic de bois et beaucoup de trafic de drogue ce bandit de grand chemin cet homme très dangereux no nekkul Moustapha Diop Walf nekkul Moustapha Diop bu leen laal foofu ce n'est même pas proche jegewu ko sax Moussa Fall son chat noir est un Casacé qui était en Casamance avec lui on l'appelait le chat noir yéen wax leen rek laaj leen rek dem leen gas leen di ngeen gis laaj leen leen qui étaient les chats noirs les chats noirs les chats noirs le chats noirs keneen ki dinaa leen jox hint major kanji major Kandji de la gendarmerie moom moo nekkoon benn chat noir bi léegi jox naa leen benn journaliste bi dootuma leen ko jox duma leen ko joxagum mais le gendarme c'était major kanji moo doon benn chat noir bi Major Kandji, c'était l'autre chat noir. Il y a un autre. Major ngeen xam c'était l'autre chat noir. gis nga Moussa Fall li mu def ci ñaawteef ci Sénégal nee naa leen xol bi dëgër na dëgër boo xam ne yaayam bi ko jur bi muy génn àddina imaginel yaay di génn àddina nee nañu doomi aadama buy génn àddina dernier souhait moo doon Moussa Fall bu ko gàcceel mu ne ko Moussa Moussa Moussa li ngay wax ni li ñuy la jiiñ nii est-ce que yow la bi yaay ji di génn àddina Moussa ne non du yaay ji mer lool yaay ji yooyu mooy kàllaama yu mujj yi mu génnee àddina kii di Moussa Fall mooy doomu xaram bu gën a ñëf ndayam ci Sénégal nee naa leen c'est un imbécile de premier galon il est tellement dangereux si on le savait fépp fu mu jege nit man koo assassiner di nga ko assassiner mooy doomu xaram bu gën a salte ci Sénégal yépp c'est sa Moussa Fall damay ne Sénégalais parfois on est en danger parce que bu ñu demee ci réew bu ñu demee ci réew ba ay doomu aadama noo ma li may wax du deñ Moussa Fall ci boppam mi ngi may dégg nee naa leen ndeyam bi ko jur bi muy génn àddina yaayam naqar bi ko njëkk a génnee ci àddina bi ko génnee ci àddina daf daf ko ne Moussa mbaa liñ jiiñ nii du yow li ñuy jiiñe nii yëpp mbaa du yow Moussa mu ne noonu moom mussa ne du moom ah mu ne baax na yaay ji ses derniers mots mu ne ko dimbali ma ngir yàlla rek dimbali ma ngir yàlla mussa buñ la dégg ci yii parce que yaay ji xam na Moussa Fall daf ko yàgg dégg ci njombe Moussa a fait pleurer toute une nation Moussa Fall deyam sax du rafet bàyyi leen ko xel dee yu gën a ñaaw ci dee yi dee yu gën a bizarre ci dee lay dee nee naa leen doomu xaraam la boo xam ne fi mu toll nii li mu ne ci ay fonds gis nga léegi même bu ñuy dem Turquie xam nga tey comme grenade lacrymogène yi ak maanaam euh, xeexukaay yu bari Turquie lañ koy jëndee Turquie Moussa Fall muy dem ay valise u xaalis la gaa am yi di yóbbu liquide la ñuy yóbbu maintenant ils sont liquides laajal ma sama gars yi Sénégal ne leen ndax dollar am na ak euro dollar ak euro amatul Sénégal dafa manqué ñii dem di wecceeku toujours ñu wooma kaas y a pas d'euro y pas de dollar lañ lay wax dollar ak euro dafa manqué parce que les grands voleurs de la République les grands voleurs de la République ils ont volé tout l'argent et l'acheté maanaam dañu jël xaalis bi yépp dañ ko jënd pour mën a nëbb seeni ay njombe boo waxee rek ñu ne la force reste à la loi quelle loi où est la loi ana loi Sénégal loi attewul keroog Ziguinchor loi attewul ne Ousmane Sonko da dem jëlee ay fiche électorale am loi attewul loi attewul ana loi Macky Sall moo fi waxoon loi sénégalais yi ñun bi ñu ngeen ne ah non def leen ndànk bàyyi leen rek yoon def liggéeyam yoon deful liggéeyam ana ngeen naa fekk yi ana ngeen yéen ñi dul wax dëgg ana ngeen yéen ñi taxaw ne nañu bàyyi yoon def liggéeyam ana yoon ana yoon wala déggu leen Juan Branco li wax tey wala déggu leen Pape Alé wax tey <coughs> la loi du plus fort moo am Sénégal amul loi la loi du plus fort léegi juge juge jël décision un simple officier un simple fonctionnaire ne du doxal doxale juge bu nekkoon ci pays bu normal dañ koy nguufaan léegi procureur day joxe ordre ñu dem arrêté ko dugal ko kaso si saa si il doit être limogé et emprisonné waaye ñu ne tekk tekkaaral toog lem seeni genn mel ni ay xaru yaraan ñépp ne pat force reste à la loi xanaa xamu leen ne réew mu lakk ci àdduna bi ñàkk loi moo ko moo ko lakk parce que boroom xam-xam yi dañu ne loi bu amatul ci réew population moo war a jël see responsabilités quand la loi ne s'applique pas les population doivent prendre leur doivent exercer leur propre droit population Sénégal ñoo war a génn jël seeni ay loi seeni ay matuwaay dem fekk Macky Sall ci biir pale bi Dakar ndeyam jàpp ñoom Antoine Diome yëpp taal leen loolu bariwul xanaa seetluwu leen événement yu mujj yii waxuma événement yu yàgg yi de yu mujj yii est-ce que xam ngeen li gën li gën a tax événement yi amul yenn euh, effet yi c'est parce que police ak gendarmerie génnuñu ndeysaan xale yi tamit ils étaient tellement confortables comme amuñu kenn ku leen confronté bu ñu dawee fii tuuti daw fële tuuti imaginez là ces derniers événements là amul benn confrontation entre force de l'ordre ak population sénégalaise population bi dafa def lu ko neex dem toogi këram après la Macky Sall dem di leen traqué groupe bandi benn groupe bandi rek la ñiy traqué ni c'est pas cinq mille policiers c'est un groupe de dix délinquants dañuy traqué Samba dem këram jàpp traqué Abdoulaye dem këram jàpp traqué Masamba dem këram jàpp pour créer la terreur lii mooy créer tiitaange parce que xam nañu ne amatuñu défense Macky Sall li tax mu jàpp prisonnier politique yi yëpp c'est parce que amatul police ak gendarmerie parce que police ak gendarmerie gëmatuñ ko la police sénégalaise et la gendarmerie sénégalaise savent xam nañu ne Macky Sall daf leen di sacrifier bi ma leen mujjee wax mooy bit otoom yi mu doon reyee nit yooyu la jël jox ko waabit les mêmes voitures qu'il utilisait pour assassiner des gens mu jël même oto yi jox ko waabit adduna bi yëpp di ko gis oto yaa ngi nii gis ngeen oto yi léegi ñu dem xooli même oto yi gis ngeen leen ñoo nekk di tirer ci kaw population

bleu fonce oto yaa ngi nii oto yii la may bip mi ngi nii bleu fonce les mêmes voitures oto yi la doon reyee nit mu jël ko jox ko waa bi pour takkal leen parce que comme dafa am ka cour pénal international ñooñu biñ ko tiitale Aïssata Tall Sall dem fa mu ne leen waa bip waa bip ñoo ñoo yor oto yi mu ne leen Macky daf leen ne mu ne force de l'ordre yi ñoo yor yi léegi mu dem xam nga Macky Sall dafa am lu bari loo leen comprendre vous savez qu'il des hommes à la bip maanaam délinquant am yi mu yor bip ñooñu la jël mu jox leen oto yi ne leen ñooñu pour ñu jël responsabilité que waa bip ñoo doon tiire ci population bi parce que self défense population bi dañu doon tirer seen kaw ay force occulte te pourtant amul woon benn force bu différent mu jël oto yooyu jox ko waa bip peinture ko bleu foncé pour takkal waa bip léegi lu xew rek waa BIP lañuy jiiñ ne ñoo rey nit ñoo def lii ñoo def na le te pourtant de waa BIP yëguñu sax bi Macky Sall di dafay ñaawtee fam ak ñoom ne lii moo xew Sénégal on est en danger on n'a de justice amuñu justice amuñu àtte justice yi juge yi bu ñu jugee kenn du leen ah, les magistrats prennent des décisions kenn du respecté ay décision euh, magistrat cour suprême mu yóbbu fa Ali Siré Ba Ali Siré Ba nee naa leen du moom moo fa waroon nekk c'est pas lui ndax xam nañu ne ce n'était pas la personne qui devait venir au rang parce que xam ngeen mbir mi dafa am nu muy doxee wax naa leen je vous dis que la loi 2008 tiré 35 tiré euh, fait le 8 août 2008 dafa ne bépp magistrat bu nekkoon cour suprême bu bàyyee keneen ki gën a haut gradé mooy jël jël leen exemple baajo Camara ak Pape Ousmane Sakho kii dafa bàyyi ki gën a gradé procureur bi moo jël de la République euh, procureur général bi moo jël léegi dans le cas de la cour suprême y avait la procureur général Mansour mbay waaye nanguwul Mansour mbay jël parce que Mansour mbay nee na waa Casamance la c'est un Casamançais donc nanguwul kooku nekk euh, euh, président cour suprême parce que cour suprême lay soxla pour def jikko doomaraamam yépp donc mu jël benn ne da ko mbandum Alou Siré Ba teg ko fa gis ngeen Mariama je ne sais pas qui la la la attorney maanaam l'avocate avocatu état bi nga xam ne moom moo demoon ci mbirum Ousmane Sonko bi pourtant kooku dafa woon juge bi ñii nañu delloo Ousmane Sonko ay fiche de parrainage parce que teguñu ko fenn mais juge bi deful loolu il a décidé autrement warul demee noonu Ali Siré Ba papaam Siré Ba la tuddoon papaam aussi attekat la woon Ali Siré Ba Ali la turandoo maamam mu Siré Ali Mbo Siré Ba Ali turandoo maamam pappu pappam moo tudd Ali pappam tudd Siré donc moo mu tudd Ali Siré Ba papam c'était un juge léegi bapullo yi ñoo ñëw bàyyi xat xaana yi di leen defloo ay sale boulot ça ne devait pas se comme ça il est temps que les sénégalais ñu jël suñu ay responsabilités il faut prendre nos responsabilités parce que gis nga bu ñu jëlul suñu ay responsabilités day metti ci ñun rek day metti ci ñun day metti it hurts day metti ci ñun de bu ñu jëlul suñu ay responsabilités it's gonna gonna hurt. parce que ñi ñu ko seqal duñu ay nit xam nga boo sequl gor yow ngay xaar di xaar réponse gor yow yow lu la naqari rek nga ci jële gis nga fii dama leen di won fii mooy këru Aïssata Tall Sall kër sa maison de famille moo nekk nii gis nga boo ko tàppee Google rek da koy gis moo nekk nii déjà moom laa leen génneel nii ci Google këru Aïssata Tall Sall ah sa maison de famille moo nekk nii ñun dañuy gàtt sa dañuy xeex moo nekk nii lépp lu xew ci kër de famille bii lañ koy defee kër gi mi ngi nekk Sacré-Cœur 1 mi ngi nekk à côté de IP IPG à côté de IPG la nekk il faut sénégalais yi ñu pare il faut sa préparer gis nga bu ñu jógul dina metti xam nga loolu euh, sama mbokk saraxu yi ñu ngi daan ne ñu ne euh, dee bu desee benn xët sëggal ñu xët la ko benn yoon fii ñu toll ci senegal dee bi benn xët la des nañu sëgg ñu xët ñu ko parce que bu ñu toogee ñun bu ñu toogee xaar ba mag Macky Sall gën a jekku ba mu commencé gën a puiser pétrole bi moom ak ñoom Amadou Ba ñu jekku Amadou Ba moom bis bu jëlee réew mi billaay wallaay tallaay lazim man damay delloo sama nationalité man xam naa ne damay sànni passeport bi du du ragal ndax man wax naa leen man awma tiitukaay du ragal mais xam naa ne bu boobaa suñu mbirum Sénégal moom man falaa koy effacer pare ci continuer li nga xam ne moom lay def mais ba deux mille vingt-quatre on a cette chance de se Parce que Macky Sall, il a un problème très sérieux en ce moment. Les Sénégalais lui ont tourné le dos. La résistance a augmenté. Macky Sall tey moom ak ñoom Amadou Ba mënuñu sax campagne ci biir réewu Sénégal bi ci boppam dañuy force seen bopp population bi rek mais fu ñu dem population bi yuuxoo leen Ousmane Sonko nañu taxaw jàmmonte jàkkoon ñoom pour dóor doomu xaraam yi lañu cartel nee naa leen c'est des bandits c'est des délinquants amuñu fit amuñu fit te kenn àndul ak ñoom personne n'est avec eux kenn àndul ak ñoom donc gars tey fii laa yemaat encore ak Moussa Fall waaye dinaa ñëwaat comme ni ma leen ko waxee rek duma sonn chaque jour ma indil leen ay njombeem dinaa leen dolli dinaa leen dolli waat de mbirum Moussa commandant Fomba mii mu dindi jiiñ ko fenal ko sosal ko doomu jàmbur boobu ak ñeneen bis bu ne dinaa leen indil mbiru Moussa Fall du bu leen fàtte ñëwaguma ci dossier Amadou Ba ak yeneen candidat yi On a Ali Ndiaye, je pense. On a Boun Abdoulaye, Abdoula, Boun Abdoulaye John. On a Mamboy Diao. Voilà, donc à la barre, toujours. dañuy ñëw rek dossiers yi ñu koy indi benn par benn incha allahu rabbi ñu koy waxtaane ñu koy waxtaane di ko waxtaane di ko waxtaane chaque jour di indi ay leeral mais dañu bëgg ngeen xam ne Sénégal amul yoon tey dégg ngeen ama frère Pape Alé Niang tey dafa wax ba sama yaram daw may déglu Juan Branco di wax Juan Branco di wax tubaab sacrifier àddunaam yépp pour xeexal Sénégal Juan Branco di wax may xalaat di xalaat waan Branco di wax ma ne ngeen xoolal ma lii rek Macky Sall yéen xam ngeen xel ne Macky Sall n'est pas un président Macky Sall est dictateur dictateur la dictateur la bu poñe Sénégal te bu ñu moytuwul Moussa Fall tiital na ko tiital boo xam ne jaxase na seen xel yi moom ak Marème fay Sall jaxane dafa jàpp Macky Sall moom dañ ko jàpp otage mais dañu jaxase seen xel yi daf leen tiital tiital leen ba ñu tiit tiital leen ba ñu tiit entre parenthèse bu ñu defee seen tojaangi rek ñu génneel ñu dëmm boobu sant Saar ne ko mu génn ci dëkk bi ne dañ koo lakk dañ koo taal dañ koy waaj rey toujours dégg ngeen temps yi mu génnee moom it ay ojo ak Gabriel kan tu vous savez ce qui est extraordinaire audio yi ngeen dégg noonu dofam bi dem teggi ci tele bi ne loolu la wax Gabriel kan ba Gabriel Kane mer wax ko lii du dëgg parce que audio yooyu c'est fait après bi Gabriel kan génnee dal ci kawam wax masiba naaru laa yooyu yépp après ci la Adji Sarr génn ak nitam yi comme niñ koy adviser toujours ñu ne ko gaawal wax lii ne ko daf la merloo nga wax lii moo tax lii te lépp fen la loolu laa bëggoon tëjee waxtaan bi waa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu